ganu suba si di Alpha Wali Diallo consultant chercheur xelam màcc ci wàllu relation internationale euh, mu itam kuy gëstu ci Afrique ñu ngi lay nuyu Alpha Wali Diallo am mbégte àndaat ak yow ci waxtaan wi. maa ngi lay ziar mhm. alors euh, Diallo li xew Mali euh, daanaka mbetteel ci ñu bari. Euh, président bi euh, mujj nañu ko teg loxo ginnaaw ay euh, jàppante yu ndaw yamoon ci suba gi mu mujjee tekki ndombal tànkam ndax yow bokk nga ci ñi yëf yi bett. ah man de déedéet dëgg dëgg dëgg ku ni mbett la ci yow ñaari mën a am xamoo woon wala nga xam noo parce que Mali ça fait juróom-ñetti weer yi dara doxatu fa jàngatuñu Euh, jihadiste yi ñu rey nit ñi islamiste ngi rey nit ñi ngi xuloo seen biir dem ba jéggi dayoo parce que ñoom fi ñu jógee dafa sore dafa am ñetti gàllankoor yu metti yu dal seen kaw ñeent ba ñeent hmm. benn bi mooy euh, terroriste yi fa dugg euh, ñu koy xeex naam jeexagul ñu commencé xeex seen biir pël yi dogon yi hmm. ak ñeneen ak ñeneen beneen bi ñëw mu am crise politique kujje politique bi mënuñu déggoo si dara pour saafaraal jàngoro askan bi mbas mi ñëw mm-hmm. bërki dëmb bërki dëmb gis nañu CEDEAO yebal fa ay nit pour ñu dem waxtaan ak nit yi parce que fa dëgg dëgg dëgg dëkk warul mën a doxe noonu mm-hmm. ba ba ñuy dem ñoom ñu ñuy kujjee société civile yëpp nañ leen bind nañu wax nañu loolu la ñu mën parce que ñun du ñu dogal ni leen euh, jamono dafa toll fenn foo xam ne ni soo amee askan bu ndaw da nga leen di déglu te ku déglu ku ku dégluwul Mali ku deful sa bopp malien mënoo déglu malien li leen daal dafa metti ku dem Bamako sa fit du toog ñu dëkk si ñoom xëy suba ni politiciens yi yëpp ñoom ñoo yëpp nañu jëlaat suñu li ñu dénkaane woon xool naka lañ koy joxe waate police euh, politiciens yi tam xam na ñi doon xeex politiciens yi tam xam na ñu nekk ci euh, situation boo xam ne demuñu dëkkuñu militaires yi jël seen responsabilité donte ñaawlu naa man ci fi ñu toll nii euh, militaire bi dugal loxoom ci affaire euh, politique ak yooyu mm. waaye fu dëgg dëgg dëgg dëgg lii moo ko mënoon a te dama koy rafetlu parce que gis nañu ku d'état boo xam ne direct wu fa mm-hmm. ñi ñu jàpp sax amaana xëy na noonu la war a nañ leen jàpp nañ leen bàyyi parce que militaires yi man bu ma leen dégloo lañ ci jublu fu dëgg dëgg du toog ci pouvoir parce que ñoom am nañu mission déjà mm. mooy terroristes yi nga xam ne ni ñoo occupé nord du Maroc ñu jéem leen fa jël loolu doy na mu bëgg sinis waaye li ñu wax ñoom mooy dañu li li IBK bëggul woon dégg ñu ko doon xeex bañ ko dégg ñu ni léegi dañuy woo ñëpp ngeen ñëw ñu def gouvernement waaw ñu def gouvernement d'union nationale transitoire hmm. boo xam ne nii euh, dana dana doxal yi réew bi di dox aussi préparer élection yoo xam ne nii Euh, ñëpp ci bokk mu leer nañ buñ ci jugee ki maliens yi di fal ñu jox ko lenge wax ko lu leer yépp ko ba nga xam ne ni dina mën a jublu ci liy farataal euh, jafe-jafe yi suñu mbokk yooyu di dund. Mhm. kon taxawaay wi CEDEAO amoon depuis ci euh, début bi nekkul bi war. man de si sama gis-gis nekk na li wax sax. waaw ah, parce que Mali CEDEAO la bokk. waaye man dafa am lu ma seetlu si CEDEAO maa ngi gis mesure yi ñu jël ni dafa mel ni daan yi ñuy daan daanuñu ko politiciens yi peuple malien bi lañ ko bëgg daan hmm. parce que en 2011 bi nga xam ne coow am na fa ba ATT daanu Amadou Sanogo defoon lu ni mel boobu ATT boobu avant ATT di daanu ñi ñuy wax ni nekk normal yi commencé woon nañu di dugg Mali ATT militaire président commandé ay armes yoo xam ne fayoon na ko ba pare aw armes yi war a aw Abidjan pour ñu transiter ko Mali CEDEAO lu mu def coup d'état bi am ñu def embargo loolu moo tax jihadiste yi gisuñu kenn seen kanam parce que armée malienne amatuloon gànnaay wa voilà voilà donc tey jii bu ñu toogee Mali kenn deewu fa gisuñu population bi génn ni euh, c'est pas normal CEDEAO xëy suba ni damay tëj sama frontière yëpp ak Mali lekk dootu fa dugg garab dootu mais loolu mooy lan. surtout ci jamonoy mbas mi. mbas mi non xam nga dafa am décision yoo xam ne kuy defar bu dax doxal leen noonu. Hmm. te dama ni suñuy nit ñu njiit ñoom ñëpp nga xam ne nañ wax wax ji ñooy ndeyu mbil mais ñooñu. war nañu xool yeneen jumtuwaay yoo xam ne nii dinañ leen wax lii lañ leen di bañal démb ATT bi ma koy seetaan muy wax sama rango ñu ngi tuur man panafricain la défaite la défaite la parce que waxuñu si vingt et unième siècle ñun di taxawee nii te bu ñëpp dëggu woon sa njëlbeen du euh, am lii parce que li ñu mujjee doon ko ñaan mooy ñu Euh, premier ministre boobu mu limogé ko woo nit ñi defar loo xam ne ni day séddoo ko ñoom le pouvoir. Hmm. dafa tan xam lu mais mais euh, dama ni gis nga yëf yi ku ko natt ci sa bopp ku ko natt ci sa bopp di xam ne ah lii de dana saafaraalagum ñu waxtaan ba xool fi ñu jëm léegi nag communauté internationale yooyu man dama ni. bokk naa si ñi nga xam ne ah damay gëstu gëstukat laa. Mm-hmm. dama gisaguma ku ma jox définition communauté internationale mooy la. est-ce que Samba njaay la tudd wala lu leen neex ñu dugal ko fa ni ma ko gisee nag man mooy ñoo xam ne ni ay nguur lañu dañoo boole am état dégg nañ ko fi amul xarit ay intérêt lañu am. Mm-hmm. ñoom dañu booloo am seen intérêt yu ñuy défendre. lu am bu jëmee ci saasu intérêt yooyu ñu ni d'accord nañu bu ci jugul ñu ni d'accord ñu si booy seet tey jii ñiy condamné coup de bi yëpp waaw bi Maliens yi di dee comme ay weñ fi nekkoon est-ce que ñoom ñooy ñàkk lu ñuy lekk est-ce que ñoom la terroriste yi di sonal ñooñu bu ñu jigéen nga bëgg dal seen kaw ni leen de démocratie mais mais balaa ngay démocratie suuf saaku bu feesul du taxaw hmm. loolu la politiciens yi war a te dama am yaakaar ni CEDEAO des peuples bi ñuy wax nii ñu ma koy métteloo ñi hmm. dañu dépassé président yi parce que ku ci nekk am nga mbokk Mali ku ci nekk am nga mbokk Côte d'Ivoire gi nekk yooyu hmm. lu leen xoos xuriñ waaye nañuy waxante dëgg looloo am solo alors M5 RFP bi nga xam ni euh, daanaka imaam di ko mooy euh, bopp bi déggaguñ leen ginnaaw bi li lépp xewee ñoom ban taxawaay euh, nga gis euh, ñeel leen ci li mujjee xew ma lañ soxna si dama la ni gisuma maal yi yëf yi ba mu amee dëmb ba léegi ku taxaw ni li ànduma si hmm. ñoom m boobu luñ doon laaj waxtaan ak IBK si njëkk ni ngay doxale du nii bàyyi nañ la juróom-ñaari at tey li yëf yi gën a métti guerre bi fa la gën a tànge ñëwal ñu toog ñu waxtaan ñu defaraat nga jekkalaat sa toogee mu tam xam CEDEAO ba fa dem dañu ko wax li ko neex waxuñu ko dëgg waxuñu ko dëgg lan moo nekkoon dëgg gi mu tekki ndomal tànkam dëgg bi moo doon yow kat xoolal sa askan kontaan nañu si ni ngay doxale hmm. te comme léegi da nga maam yow nag yaay président bi boole leen si comme ça buy lakk du ñu nii du yow kenn yaa ko lakk neex naa dégg loolu nanguwul yooyu yëpp duma démissionné sama premier ministre du démissionné li CEDEAO bëgg laay def waaw ñan ñooy sonn waa CEDEAO yi man Alpha Diallo mi toog Dakar fii maa ngi koy mettitlu mais impacté wu ma nañuy déglu Maliens yi ñooy impacté ñoom ñoo sonn ñoom la ñuy rey seen doom ñoom la son doom yi jàngul Covid bi ñëw amuñu non neexul si xol. Hmm. dañu laj nañu am humilité reconnaître loolu comme ça suba parce que am na yeneen gox yoo xam ne nii dafay xeeñ neexul bañ buñ fay dem di jéem a defal ñuy wax dëgg. Hmm. léegi loxol France gis nga ko ci lii xew tamit ñu bari jàpp nañu ne moo nekk ci ginnaaw. buñ koy saytu sa njëlbeen. Hmm. France dugal na ci loxoom. kenn waxul woon France ñu dem xeexi Sarkozy. Euh, Kadhafi daaneel ko moo jur mbir léegi yëpp te it kenn waxul woon France ñu dooleel Assawad Touareg yi nga xam ne ñoo doon ñaan indépendance seen hmm. première déclaration ma dama ko seetaan en direct France agression la woon kooku contre la nation malienne après yëf yi di law terroriste yi dugg si hmm. te wax naa la embargo arme bi ñu tegoon ci armée Mali France nee nañu maliens ñoo leen woo gisaguma autorité responsable malienne bu ma ni président bi moo woo France nañuy hmm. wax dëgg hmm. xam na na xëy na la France comme dafa yàgg xëy na moom toog na ni lii man maa ko mën a régler am ñu ko si jàppale li lalu si biir ñu bari xamuñu ko mais France seen loxo ngi ci tey jii nag li xew nii duma ni seen loxo ngi ci. Hmm. parce que maliens yi dañu taxaw ni ñun mën nañu fajal suñu bopp suñu problème xaw ma naka lañuy taxawee foofu. Hmm. gis naa seen njiit yi ku si nekk génne nga bataaxal di wax waaye bataaxal yi bu ma ko gestu li ñu wax yépp ci njuumte CEDEAO yi lañ topp te peuples yi soxla te peuples yi soxlaatuñu loolu. d'accord alors fi ñu jeexalee mooy euh, wax nga ni kon armée malienne gisoo ne danañu bëgg a akimoo nguur gi kon dañuy def ni Haya Sanogo en 2002 bi nga xam ne ñëw na def weer ak lu tekk daal di jox euh, IBK mi nga xam ne moo fi toog tey kii nar a ñëw nag ngir bañ aw ci tànk IBK yi ban taxawaay la war a am. gis nga gis nga déedéet bul wax sax ñii defuñu comme ñi Sanogo defoon euh, comparaison n'est pas raison. Hmm. c'est-à-dire parce que situation ba Sandago fekkoon ak bi bii moo ko gën a tax téeméeri yoon donc ñii ba ma leen di dégg ba léegi mm-hmm. waaw mais soxna si da ñëpp gisoon nañ dafa am blocage ñëpp gisoon nañ ko waa armée lan mooy rôle armée défense nationale lañ ko wax waaye bu fekkee yow kër gi ngay défendre dafa am problème ci biir nit ñi di xiiroog naa yow yëf voilà balaa ngay laax jaay laax lekk mm-hmm. te neewuñu gëmuma man de dinaa bokk si ñoo xam ne nii dinaa def pression si ñoom pour ñu bañ fa yàgg mm. waaw li ñu wax li ñu wax ba ba ñu jàppale leen ñu dox ko nañu woote malien yépp toog am ñu ñu tànn ba fii ak ñuy mën a def ay élection yoo xam ne ñi ñëpp dinañ ci bokk ñëpp dinañ ci ànd mu leer nañ kii ñëw nag lu ko war kii xam na ko mm. li tax askan wi jóg amul schéma soxna si. Mhm. xam ñun yenn saa yi dañuy am ay gis-gis yoo xam ne mais ki ki ñuy fal suba malien boobu. Mm. gis na li askan bi di jànkoontoon. li ñu bañal IBK. waaw te gis na it lii daal IBK. parce que mm. IBK man maa ngi leen ni damay seetaan yi fi démb damaa rus. Mm. parce que am na lu mu liggéey Mali. ku xam passé IBK di nga xam ne fa dëgg dëgg kii dafa laj dafa daanu daanu bu ñaaw. Mm. te lii baaxul ci mag sax. jërëjëf euh, Alpha Waly Diallo euh, xam naa du ñàkk ñoom yeneen jotaay gën a xuus ci mbir mi selon aussi ni yëf yi di demee amoon nañu mbégte en tout cas ànd ak yow ci waxtaan wi tey ñu ngi lay gërëm fàttali ni euh, consultant international nga chercheur nga itam ci wàllu relation internationale ku xelam màcc la ci Afrique ak ni muy doxee surtout ci wàllu politique ñu ngi lay gërëm bu baax. incha soxla bismillah